kon kon on peut dire que c'est peine perdue peut ñi yaakaar ne ni ñuy agressé Pastef nii amuñu temps pour préparer li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle. non loolu peine perdue la ndax ñun defe naa ni daf ñoo gën a permettre ñu am jot. Mhm. parce que lii su su lii amutoon du ma am recul bi ma am nii bu mën cee liggéey ndax jamono ju ne yaa ngi ci tournée yi. Mhm. yaa ngi ci àll bi yaa ngi ci audience yi de recevoir yaa ngi ci réunion yi. Mhm. yaa ngi ci terrain bi. Euh, waaye lii may nañ ñu am recul boo xam ne mun nañ ci liggéey nañ ci war warul nag continuer mhm. ndax politique balaa lépp balaa dara terrain bi la mhm. warul continuer lu war a la ndax jot na ñu dellu nag ci sénégalais yi namm nañ leen namm nañu mhm. jot nañu reprendre liggéey bi waaye am na ci ndax nit loo gis rek yow yaa ko war a transformer en opportunité situation boo gis rek nu mu métti métti njëriñ mun na cee jot. Mhm. yaa ci waa ko war a transformé en une lii nag lii la ñu mënoon transformé en mënoon naa tëdd fii di nelaw di yeewu waaye defaru nañ ci tuuti ci wàllu wér gu yaram mhm. ndax ku ma daan gis ci euh, semaine yooyu léeg-léeg nit ñi dañ ma daan wax sax naan ma yërëm nañ nga jeex nga tàkk ak euh, et cetera parce que doo lekk doo naan yaa ngi tout temps ci action bi mais am nañ ci loolu waaye am nañ ci liit te lii am na solo